ok alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di wax ne ñu ngi dund tey ñaar fukkeeli fan ak juróom-ñeent ci chahru ramadan bu 1439 loolu muy wane ni su soobee yàlla mën na nekk bis bu mujj ci weeru koor te it ñu xam ni séentu weer it ak jaamu yàlla la képp koo xam ne yàlla may na ko mu mën a am bët yu neex nga la way ndey xool suñ koor gi biñ koy sos am na mbooloo mu bari ci unité 17 gi lañ ko gisee su ko defee kon nit ñi bàyyi xel ci wàllu googee comme niñ ko waxe woon ak mbokk yi tamit mooy nekk na loo xam ne nii luy xaw a am tuuti jafe-jafe la ndax ñun duggandoo wu ñu ci koor bi loolu am nattu la bu ñu yàlla nattoo xatta ñu nag waa Makka duggandoo wuñ ci koor bi su ko defee li ci des mooy imma yàlla dogal koor gi yàlla feeñal weer bi ci feeñin bu leer ña commencé wul woon ci bis bu njëkk ba fay bis wala gisuñu ko ñun ñëpp ñu ànd imma buñ demee ba matal fanweer su boobaa tamit ñi nga xam ne dañoo nekkoon ca ñaar fukk juróom-ñeent ya ca xabaar bu njëkk ba doyu leen woon loolu it ñun ñëpp dañuy ànd rek daal di wari kon mi ngi noonu ñu ngi ñaan daal suñu borom yal nañ ca tànnal lay dëppale suñuy xol kon incha allah tey mooy suñu ñeenteelu daje bu ñuy daje ak saaru màgg wi di suratul an'am ci bind bi nga xam ne it mooy bind bu mujj bu ñuy jël ci chahru ramadan nga xam ngeen ni bisu trente bi lu ci bëri imma du nekk bisu koor wala bu nekkee bisu koor it ñu bëri dañuy bëgg a génn dem seeni dëkk ndax ndakaaru ñu bëri dëkkuñu fi looloo tax ñuy tëj tafsir bi lu ci bëri ci bis bu mujj bi te la nga xam ni moom mooy bisu ñaar fukk juróom-ñeent yi naka noonu it la ñuy wax ci ndog yi ñuy indi ci jàkk ji naka noonu daañ ko indi ci bisu tey bi mais bisu suba bi même bu dee bisu koora jigéen ñi ñoom dañuy noppalu bëgg a dem ñoom it li jënti seeni it almuhim loolu kon lañ doon laytaayoo di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla tëjal ñu ci jàmm suñu mboole mi jàmm yàlla kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane ci bind bu njëkk bi ñu ngi war a jël tey aaya fanweer bi ak ñaar ak ak juróom benn innama yastajibu alladina yasmaun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم يجعله على صراط مستقيم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن برم إنما يستجيب الذين يسمعون ña nga xam ne daal ñuy wuy si mooy ña nga xam ne dañuy dégg wal mawta yab'athuhumullah amma néew ya dee yàlla moom moo leen di génne ci seeni bàmmeel thumma ilayhi yurja'un gannaaw ba ci yàlla lañ leen di delloo wa qaalu lawla nuzila alayhi aaya ñoom day ñi ngi naan moo lu tee woon ñu wàcc ci moom kawtif aayatu min rabbi kawtif bu ba wocce boroomam qul inna allaha qadirun ala an yunazzila aaya neel yàlla day am na kàttan ci wàcce kawtiif walakin aksarahum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nekkuñu di xam wa ma min dabbatin fi l ard amul lenn loo xam ne danay dox ci kaw suuf wala tairin yatiiru bi janaxihi wala bépp aji naaw buy naawe ca ñaari laafam illa umamun amsaalukum lu dul dañu nekk ay giir yu mel ni yéen nit ñi rek ma farratna fi lkitaabi min cheyin manki lu ñu ca suñu téere ba ci dara lépp bind nañ ko aar ki feeg nañ ko thumma ila rabbihim yuxcharuun gannaaw ba ñoom ñépp ci seen boroom lañ leen di dajale jëmi walladina kazzabu bi ayatina ñi nga xam ne nag dañoo weddi suñu aaya summum wa bukkumum fi zulumaat ñoom day dañoo nekk aji tëx aji lu mooy ku munta wax muy bukkum ba pare nekk ca biiri lëndëm man yasha illahu yudlilhu ku neex yàlla mu réeral la wa man yasha yajalhu ala sirati mustaqim ku neex yàlla it mu teg la ci sirati mustaqim yàlla nañu teg ci sirati mustaqim bokk ñi ngi nii ak saaru mag wi di suratul an'am saar woo xam ni dafa fees dell ak tawxid suñu boroom yónni na ab yonentam ngir mu mën a waar nit ñi génne leen ci lëndëmi réer yóbbu leen ci leerug texe lii tax ñu texe adduna ak alaxira waaye suñu borom mu ne yow yonent bi dalalal sa xel du ne say wax ji moom mooy lii gindi doomu aadama yi waaye nit ñi dañoo séddili ko ñaar ña nga xamee ni nii yàlla may na leen ñuy dégg day ñoom boo leen waaree dañ nangoo dégg te kiy dégg mooy ki xolom dundu kiy dégg mooy kii nga xam ne bëgg na lu baax ak ngëm mi ngi ci xolam ku mel nii day buñ ko waaree dana doon kuy jëriñu doonte ni loolu suñu borom wax allazina yasmaun mbokk da ngay gis ne tey li ëpp ci doomu aadama yi la ñuy dégg ak la yàlla santaane woon ñu dégtal leen ko daa safaanoo da ngay gis koo xam ne ay ati at dund na ko dund na ko waaye lan la dégg ci diine mooy xarbaax yi ma sàmba xarbaax yi ma demba mais dëgg dëgg alquranul karim ak sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu yegg siwul ci moom loolu nekk benn musiba am na nag ñoo xam ni alquran ju leer yegg si na ci ñoom sunna bu leer yegg si na ci ñoom waaye seen xol dafa dee seen xol dafa tëju suñu borom yemele leen ak ay néew yu dee mbokk néew bu xisee ba dee c'est fini soo ñëwoon tey jii ci armeel yi ey yéen waa armeel yi jóg leen julli waaye fajar jot na ey yéen waa armeel yi jóg leen génne zakka ndax doo sonal sa bopp ah kay am na ñoo xam ne it seen xol dafa dee waar leen ak bañ a woor waar leen ñoo yem lañ lañuy xaar xanaa daal yàlla dekkal leen yowmal qiyaama xisaab leen comme néew bee tëdd loo ko mënoon wax it du la dégg xanaa lu dul yàlla dekkal ko yowmal qiyaam te loolu muy albas borom bi nag ni gannaaw ba ñoom ñépp ci yàlla lañ leen di dellu delloo ca loolu it di bis boo xam ni suñu borom nee na nañ ko ragal borom xam-xam yi ñu ni mooy aay bi mujj a wàcc ci alquran te mooy wattaqu yawman turja'una fihi ila allah mbokk ku nekk ci yéen war nay xalaat bis bu génnee bàmmeelam ci baas boobu yàlla wax bi nga génnee ñaari malaaka ñëw siq la daal di lay escorté ba taxawal la sa kanamu borom su boobaa ñuy xisaab la taxawaay boobu boo fa jógee imma nga jëm ci xéewal abadan wala nga jëm ci musiba loolu ku nekk ci ñun war na koo waajal nuñ koy waajale suñu borom yàlla nee na fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada lañu koy waajale du ay dollar du ay lu mu mën a doon waaye mooy ngëm gu sell ak jëf ju baax loolu rek moo la mën a musal keroog borom bi nag di wax yéeféer yu bon yi lu ñu doon wax yonente yàlla bi ana lu teewoon mu wàcc kawtéef bu jóge ci boroomam nee leen yàlla am na kàttan wàcc kawtéef waaye li ëpp ci yéen xamuñu xamuñu ci ni aw xeet bu dee ñoo laajal seen bopp kawtéef bu yàlla wàccee kawteef suñu gëmul ñoom ñépp la yàlla boola maasale te amul benn xeet bu masa woo ab yonentam na ko indi kawteef mu indi kawteef ba pare ñu gëm loolu moo tax borom bi ni wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun dara teel ma ci kawteef lu dul mboolem ñi jiitu woon ñépp laajoon ko weddi nañ ko mu indi ci benn preuve wa atayna samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha waa samuda ngi nii joxoon nañ leen giléem gu leer nañ teewul ñu toñ ko booleeg itamit bu doon yàlla da leen a topp ci kawtiif kii ne yàlla kat dañoo bëgg nga tawal ñu oor kii ne déedéet yàlla dañoo bëggoon ah suuf yépp nekk ay mango kii ne déedéet yàlla dañoo bëggoon ku nekk wax sa kawtéef kon ndax dana sotti laa kon kay yàlla rek moo am droit moom wàcce kawtéefam ku gëm yaa xam ku gëmul yaa xam borom bi ñu li ëpp ci ñoom xamuñu te it xamuñu ne kawtéef bi gën a rëy bi gën a sax mooy alquranul karim mbokk mboole mi kawtéef yi ko jiitu woon te yàlla musul yónni benn yonent lu dul jox na ko kawtéef munzu nuux hud saalix képp ko mën a wax ba ci Muusa bi nga xam ne kawtéefam yàlla waxoon nañu ko aw yatam la yoroon woo xam ne dana ko sànni mu nekk jaan dana ko dóor ci xeer ndox ma génn dóor na ko ci géej géej ga xar ila axiri yonent yàlla Isaa ngi nii semaine bi rek lañ jàng kawtéefam dem na ku juddoo gumba dalay laal nga wér gaana na ko noonu dekkal ne ay néew waaye yooyu anamu yooyu gisatuñ ci dara amma alquran nag moom mi ngi fi nekk kawtéef ba ila yawmi din kon ñu bari ci nit ñi xamuñu borom bi nag wëlbati ko waat ne ay yéen nit ñi xam leen ne day amul lenn luy dox ci kaw suuf na doon loole dafay doxe ñaari tànk comme ñun wala ñeenti tànk wala muy doxe biiram comme jaan yi wala bépp picc boo xam ne day jëfandikoo ñaari laaf di naaw lu dul ni ay giir lañu comme yéen dañoo am ay kilifa dañoo am ñu baax dañoo am ñu bon ila axiri doonte ne ñoom yàlla da leen a fixé ci li ñu nekk mooy ñoom du ñu évoluer comme doomu aadama ni muy évoluer gaynde ma doon gaynde mooy gaynde ba tey naka noonu ila axiri waaye noonu lañ mel loolu it muy wone ne ki bind njaa àll yooyu moo bind doomu aadama looloo tax boo demee ci doomu aadama yi danga ci gis ñoo xam ne ñoog bàyyi may ñoo yem moo tax borom bi ñu wax beneen aaya ni ulaika kal an'am dañoo mel ne bàyyi ma gën a réer bàyyi ma yi waaye am na ñoo xam ne jukko yi fàddkat lañ yor mooy jukko yi njaa àll yi fàdde ay gaynde ay yooyu àdduna lan moo ci seen xalaat not doomu aadama jël alalam agresseur yaa ngoo am na ci ñoo xam ni jukkoy golo la ñoo yàq rek adduna daal yàq kese kese kese lu ñu am yàq lu keneen am ñu yàq am na ci ñu yor jukkoy xacc ñi leen amal intérêt dañuy yàpp yàpp seen gannaaw di leen topp ku ñu amalul intérêt ña nga lay baw di la yuuxu du la ñekkalo ko am na ci ñoo xam ne dañu yor jukkoy jaan dañu naan nem doo dégg ñu wax doo dégg ñu jëf waaye cey bu la jekkoo bu la jekkoo def la musiba mooy li ñuy wax naan yarwul dañuy yeeru gis ngeen loolu mbokk la doomu aadama yi melokaanoo ak bàyyuma yi ummamun amsaalukum muy wane ne aji bind ji kenn la borom boobu nag mu ne sàggane wu ma ci téere bi dara te mooy mbokk xel wi gën a tuuti yoo bi gën a tuuti téereb yàlla ba yàlla bindoon na kañ la yoo woowu di sosu lan la yoo woowu di màgge lan la nar a def ci kaw suuf ca booba da ngay gis yéefar yi ñu ngi doon wax naan waaye yow kii li muy wax waxi yàlla la nan lay wax waxi yàlla di tudd ay yoo ki ay jargoñe ki ay kasaaw kasa waaye mbokk nekkatee benn yoo mën na nekk sabab rey junni nit avant moom muy dee am déet loolu ca tey jii li gën a sonal doomu aadama yi mi li ñuy tuddee paludisme di sibiru lan moo ko joxe mooy yow loolu ci kattanu borom bi jalla wa ala mu ne kon sàgganewuma ci téere bi dara ñoom ñéppi danaa leen dajale yowmal qiyaam wax nañ leen ko ci tafsir bi passé mbokk suñu borom yàlla lu ma sa indi ci kaw suuf dana ko dekkalaat indi ko yowmal qiyaama kama badana awala xalqin nuiduhu waadan alayna li ma sa jaar ci kaw suuf ci ay ñay gaynde jaan ci ay yoo picc yi lu mu mën a doon lu ma sa jaar ci kaw suuf yowmal qiyaama yàlla dana ko dekk dekkal looloo tax mbokk yowmal qiyaama mbir bu màgg la mbir mu yéeme la mbir bu ñàng la yi nga noonu kenn mënu ko imaginer lu dul ku ko yàlla won ca seen borom lañ leen di delloo ca mooy loolu it mooy alxashr te loolu julit gannaaw ba nga gëmee albaas mooy nit ñi ñu génne leen seeni bàmmeel da ngay gëm alxash mooy nit ñi dañ leen di dajale dañ leen di dajale ñëw ni ci ay riwaaya yuy wax ne ci sunu suuf bi lañu yàlla di dajale ci fi tolloo ak Sham mooy Syrie gi ñuy wax ak la ko wër Palestine gi yëpp ci Sham la bokk wallahu aalam mi ngi noonu ala kulli xaal fu ñu yàlla di dajale it yàlla danañu dajale mboole seen bu ko defee borom bi nag ne yow yenente bi ñii nga xam ne dañooy weddi aaya yi ñoom day dañoo doon ñu tëx doon ñoo xam ne dañoo lu ba pare nekk ci biiri lëndëm bokk boo xoolee ci ni alquran di waxe koo xam ne nii dangaa tëx dangaa lu mënoon nañ caa dolli rek ne dañoo gumba mais yàlla waxul gumba def na ñu ngi ci biiri lëndëm lu waral loolu mbokk doomu aadama gisam du bët yu neexee tax a gis bët lu mu neex neex day ànd ak lumière bu ànd ak lumière du gis am déet ñu ngi noonu bu ànd ak lumière du gis loolu amma bu dee ne ak dégg moom nit ki mën nga nekk ci lëndëm gu tar di dégg nit ki mën nañ laa tëj ci néeg fermé ngay dégg nit ki mën ngaa nekk ci lëndëm yuuxu ñu dégg la ila axiri waaye gis moom boo nekk ci lëndëm total doo gis loolu tax yàlla ne seen nopp yi dafa tëju seen làmmiñ yi tëju ba fekk ñu nekk ci lëndëm ku mel nii naka lay gindeeku parce que bu nopp yi neexoon ñu ne ko eey diw jaaral sa ndeyjoor nga génn bu làmmiñam neexoon mu ne hey kaay leen jël si ma maa ngi fii waaye mënul wax mënul dégg ba pare nekk ci lëndëm loolu day wañee kooku kenn mënu koo jubal borom bi nag ne mi ngi nii ku neex yàlla yàlla réeral ko même bu doon soxna yonent la moo tax réeral na soxna Luut réeral na soxna Nuux même bu doon doomu yonent la réeral na doomu nuux même bu doon bàyyi yonente la réeral na bàyyi ibrahim amma na ku ko neex mu teg ko ci siraatal mustaqim looloo tax mu dem ba ca pale firawna kàccoor bu bon ba jël soxnaam sa daal di koy teg ala siraatal mustaqim naka noonu itamit rasul sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ko jiitu woon yépp gis nañu bi ñu commencé woote seeni mbokk yi sës si ñoom dañ leen wecc lu bari ay doxandeem ak ñu néew doole ñoo jëkk a ñëw topp leen lu tax njub gi njubug yàlla la moo koy jox ko ko neex yal na yàlla boole ñu ci ñu ngi noonu قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون barakallahu fiik suñu borom jalla wa ala mu ni qul araaytakum amu ndax gisu leen ñeel leen in ataakum azabullah su dee da leen a dikkal mbugulum yàlla aw atatkum saa wala mu dikkal leen lii di bisi penc a gayra allahi tad'uuna in kuntum sadiqin ndax keneen ku dul yàlla ngeen di woo su dee nekk ngeen ñu dëggu bal iyaahu tad'uun la am kay yàlla kese ngeen di woo fa yakshifu ma tad'uuna ilayhi inshaa bu ko defee mu daal di teggi wuññi la nga xam ne yéen a ngi cay woo jëmee su ko neexee wa tansawna ma tushrikuun su ko defee ngeen fàtte la ngeen ko doon bokkaaleen wa laqad arsalna ila umamin min qablik ñun de yónni woon nañu ci ay xeet ya nga xam ne ñoo la jiitu woon fa axaznahum bilbasaai waddarraa nii de lañ leen jàppe woon ci ay tartar yu jóge woon ci ay fitna ay guerre wa darra ak ay feebar ak i xiif muy ay lor laallahum yatadarraun ngir ñoom ñu mën a doon ñuy toroxlu ci seen kanamu boroom falawla is jaahum basuna tadarrau malutee woon ba mu leen dikkalee sumay lor ñu daal di doon ñuy toroxlu ci kanamu yàlla walakin qasat qulubuhum waaye la ko waral mooy dafa wow la nga xam ne mooy seen xol ya wa zayyana lahum sheytaanu mu taaralal leen sheytaan maa kaanu yamaluun la nga xam ne nekkoon nañ di ko jëf falamma nasu ma zukiru bi ban jëmee ba fàtte la nga xam ne dañ leen ca waare woon fataxna alayhim abwaaba kulli cheyin ca la ñu leen ubbil bunti lépp lu mën a doon xatta ida farixu bima uutu ba baa ñuy béggee ca la nga xam ne jotoon nañ leen jot jot nañu ko axasnahum baxtatan ñu jàpp leen ci mbetteel fa ida hum mublisun ci noonu rek la ñu nekkee di aji ñékki ñékki mooy dem ba dootoo yaakaarati mucc ca nattu ya nga nekk mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ni ma yéen yéeféer yi su doon te ne ni daf leen dikkal mbugal mu bawoo ca yàlla walla ngeen dekki woon taxaw ci yowmal qiyaama ndax yaakaar ngeen ne da ngeen woo keneen ku dul yàlla su dee ne doon ngeen ñu dëggu tonte li mooy déedéet yéefar yi di daawuñu ko def naam daawuñu ko def suñ borom feddali ko ne yàlla moomu kese ngeen di woo su ko defee mu daal di dindi la ngeen koy woo jëmi ngeen fàtte la ngeen ko doon bokkaalee ca loolu mbokk mooy yéeféer yu jëkk ya waaye am nañ benn maam bu way ay way bokk na ca way ya mu ne kéeféer ga woon a tane diine tey ji ne kéeféer ga woon bari na fu bari fu mu tane diine tey ji ndax mbokk yéeféer yi jëkk ya su masaan dem ba tar ba metti dañu naan ah léegi rek li fi sos moom yàlla buñ ko bokkaale kenn toroxlu ci kanamam na doon loolu mar wu tar la mooy nawet bu tardé la wala na doon loolu gaal guy bëgg a suuf ci géej la loolu la ñuy wax ñi xam siiro ikrama doomi abi jëhal nga xam ne ci ñi gënoon a sonal yonent yàlla bi ca la bokk gis nañu ne keroog bi mu yonent bi ubbee makka moom dafa jàpp rek ne moom buñ ko buñ ko jàppee dañ koy rey kenn du ko baal ndax li mu def l'islam musiba la mu génn daw bi mu génnee daw alors dem yéeg benn gaal ngir traversé dem ñu dem ba ci digg géej gi rek vague yi commencé di jaay ci jaay ci gaal gi benn màggatum arab jóg ne hey bu leen woo lu dul yàllay kese su ngeen woo keneen ku dul yàlla gaal gi dana suux ikrama ne bisimilah jàmm mais ñun lii ñu lañ jàppante muhammad muhammad daf ñu wax nañu woo yàlla kese mu ne ca yàlla soo ma musalee ci gaal gi de danaa dem jaayante génnante yàlla bi gëm ko yàlla subhanahu wa taala musul ko mi ngi noonu ca la jóg ñibbisi fekk yonent bi alei salatu salaam sax moom ca màkk nee na baal na leen ñoom ñëpp soxnaam ba moo dem di ko wëri pour jëli ko te yoon ba lañ daje mu ñëw mu tub dugg ci lislaam waaye liñ ci itteeloon mooy loolu waaye nag mbokk nañ xool boo demoon tey lu mel ni ay tafsirul manaar da léegi am na benn mbokk buy nettali Mouhamadou Abdou ci borom xam-xam yi nee na benn gaal boo xam ni gaa yi dañu fa jóge woon jëm Makka Misra lañ jóge wala ci dëkk yooyu jëm Makka nee na ñu dem ba ci digg géej gi rek vague yi wër gaal gi gaal gi waaju suux am ñu jóg yaa Cheikh Abdul Xaadir yaa Badawi yaa nangam benn góorub arab jóg na ya allah ya allah labal nit ñu dee benn yoon gaa yëpp noppi na ko xol ji di ko xool mu ne yéen a bon yéefir yi jëkk yi sax yéen da leen gëm nan ngeen doone ay julit jëm kaaba ga gaal gi mel nii amuleen ku indi xalaat di woo ku dul keneen ku dul yàlla gis ngeen ñëpp dellu gannaaw jàpp seen gémmiñ woo yàlla yàlla doog a musal gaal gi waaye mbokk waliyaasu billah yàlla bu leen koy yàlla nattoo yàlla mu ko yàlla nattoo waaye ku fekk woon njaganjaay buy accidenté wala kaar bi accidenté nga dégg ñaata ñoo naan ya allah ak ñaata ñoo naan yaa cheikh diw yaa cheikh sëriñ diw yaa sëñ nangam loolu mbokk da ngay da ngay da ngay kii wallahi benn waay nettali na accident bu mu fekkee benn góor goo xam ne boobu baa ngi toj mais mais fi mu tëdd mi naan cay jërëjëf sëñ diw jërëjëf sëñ diw jërëjëf sëñ diw ba seddu guy am na am na koo xam ne nii kooku jigéen la ci côté ci Louga Louga sëriñ ba muy woo ku ma xam la ba mu accidenté ba daanu mu nga naan cay diw cay diw di woo sëñ bi cay diw ba seddu guy loolu mbokk lan moo ko waral mooy peuple boo xam ne dañ leen a woo ci gëm loo leen ay nit xëccoo bi ku ne di xëcc sa mbooloo jàpp ne law loo gën a mën a wax rek loolee ngir mbooloo mi nekk ci yow loolee moo moo moo mooy la ëpp doole ca la doomu aadama yu bëri fàttee yàlla jalla waala jàpp ne mboolem problème bu ñu am àdduna ak àllaaxira am na keneen ku ko mën a régler ku dul yàlla looloo tax suñu borom ne gis ngeen yéen yi firi arab yi bu ngeen demee ba mu ñàng ngeen fàtte xërëm yi dellu ci yàlla waaye mbokk loolu da ngay gis xatta ñun musiba boobu la ñuy yàlla nattoo borom boobu nag ni moom day xeet yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon xeet yi jiitu woon mu ne man day yónni woon naa ci ñoom ay yonent ba ma yónni ci ñoom ay yonent ñu weddi ba ñu weddee suñu borom mu ne teg naa ci ñoom ay natt yu tar ci ay ñàkk yu tar ay feebar yu tar xeex yu ma créé ci seen diggante fitna yu tar ngir lan laallahum yatadarraun addarau mooy ma meewu mooy weenu xar wala weenu nag ndax gis ngeen boto buy nàmp nu muy def day ñëw ci kanamu yaay ji sukk ay tànkam yëkkati bopp bi xool toroxlu boobu pour mën a jot weenu yaay ji suñ borom mu ne bi mu indee ay natt lu teewoon nit ñi toroxlu sama kanam ma teggi leen natt bi te loolu mbokk la suñu borom wax wala nuziqannahum min al azab al adna duna al azab al akbar la allahum yarji'un heure bu yàlla gisee ay jaamam jàdd la muy jëkk a def ak ñoom teg leen ay natt ngir ñu dellu gannaaw mi ngi noonu ngir ñu dellu gannaaw borom bi nag mu ne lu tee ba ma indee ay natt teg leen ko delluwuñu gannaaw lan moo ko waral mooy xol yi moo dëgër xol ya moo dee ca mbokk borom xol bu dëgër naka yonent bi alayhi salaam misaale nee na moog mbaama yem suñ ñëwee yeew ko du xam lu tax ñu yeew ko buñ ko yeewee du yóbbu du xam lu tax ñu yeewi ko amma yow jullit yaay ki nga xam ne heure bu nattu ñëwee nga yëg sa bopp ne am na erreur boo xam ne nii kat def nañ ko toog nañ ca kaw fa ca Irak ñu toog mu mujj benn tremblement de terre am fa kii di ibnu mas'ud jamono jooju di sahaaba bu mag boobu moo nekkoon gouverneur foofu mu daal di dem def benn discours mu ne suñu borom mi ngi ñuy avertir di ñu tëkku ngir bakkaar yu mag yi ngeen def fi bis na ko tey jël ay décision ku ma gisati nga def fi nangam ku ma gisati nga def fi nangam naam di loolu la yàlla wax de wa ma arsalna min ayati illa taxwifa ah wa ma nursil bil ayati illa taxwifa mooy heure bu may indi kawteef dama koy indi pour tiital doomu aadama yi loolee kon heure boo xamee ne nii ay catastrophe am na ci géej gi ci jiiri ji nawet bu baaxul inondation taw bi bëri yàq comme at yi ni ñu ko yàlla nattoo yooyu yépp yàlla mi ngi koy indi pour tiital ay jaamam ngir ñu mën a tuubaat delluwaat gannaaw loo rek a tax gis ngeen loo rek a tax borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne lu téye bi mu indee samay nattu nit ñi toroxlu ñu sama ci ci ci kanamu borom bi waaye xol yo mooy xol yu wow ca it mbokk jurit war nañ moytu di am xol bu dëgër moytu la koy waral bokk na la koy waral mooy càggante bu bëri nekk ci ay bànneex ak xiiwal yeneen ci baal sam daan na moytu leen reetaan yu bëri fu ngeen toll keng keng keng nee na reetaan yu bëri day wowal xol day dëgëral xol bu ko defee ànd ak ay caaxaankat day wowal xol soo bëggee sa xol di tooy baril di jàng alquran jàng goo xam ne da nga koy def ta dabbur boo bëggee wol xol del taqoo zikrullah del tudd yàlla lu bari loo xam ne yàlla nattoo nañu ci loo xam ne lu yéeme la bokk suñu génération bàyyi ñoo ñu ëppoon luñ doon tudd yàlla ñooñu ëppoon lu ñoon tudd yàlla ku xam say baay xam say maam ñi ci amoon diine xam ne nañ daan tudde yàlla dizaine bi tuddatuñ ko yàlla baril zikrullah waaye bari li di ànd ak ñu baax ñoo xam ne seeni wax nekkul rek ay tukkeeg sport ak politique ak média ak ay événement kese loolu mbokk day wowal xol borom dañuy wax ni baril di déglu ay baatil day jeexital ci xol loolu mbokk ñu bàyyi xel lu wax bokk nañ luy luy nooyal xol bëgg ay faqiir di leen jege bokk na luy nooyal xel bëgg ay xale yu ndaw di leen jege yii yépp di ngay gis ne ni muy nooyal a xol contraire ba it noonu noonu lay woowe la xol su ko defee jullit bi bàyyi loolu bu baax a baax xol bi moo garab bi ñoo yem boo koy suuxate lu bon day lax gaaw a dee soo koy suuxate ndox mu baax mu dund jëm kaw borom boobu nag subhanahu wa taala ni seytaane moo leen taaralal li ñu nekkoon di ko jëf na am seytaane dafay ñëw ci ñoom na leen mais lii c'est pas grave yéen la sunu bàyyi fi jiitu it massatuhumul ba'sa wa darra dañ daan am jamono yi neex ak jamono yi naqar yi amul lu yàlla di dogal loolu mbokk mi ngi noonu borom bi nag jàlla wa ala ne ban demee nag ba fàtte falama nasau ay falama taraku ban demee ba bàyyi la ma leen digaloon jëfeetuñ ko toppatootuñ ko moo ubbil leen nag lu leen neex ci àdduna mi ngi noonu ba ñu bég ca la nga xamee ne nii ah jot nañ ko suñu borom mu ne ma jàpp leen ci mbetteel ca itamit ba ko ñu leen ko waxee ci tafsir yi passé occident gii day soo dellu woon ay siècle ci gannaaw daana ñàkk ñàkk yoo xam ne dafa jéggi dayoo li daan jur seen équilibre mooy mbay mi moom bu baaxul wóor na lu ne moom buñ doon 3 millions 1 million ba day dee amuñu leneen luñ yaakaar ñu ngi noonu dañ daan dund coono yu metti metti metti yàlla nattu leen loo xam ne nii am na luñ ci fekkee guerre 14 18 guerre 39 45 am maa nag bu ñu xoolee suñu jamono yi tey yàlla ubbil na leen lépp ñi ngi naaw di jëm ci jaww ji seen sous-marin yaa ngi dem biir géej fu ne ñi ngi fa not xiiwal yaa ngi tasaaroo ci ñoom loolu yow ndawal jurit bu mu la nax de yàlla moo ko waxoon nee na fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay loolu moo tax buñ ne laa dañu bëgg a dem naaw dem Uranus dañuy dem Mars dañuy dem nangam mën nam sax bu ko weddi parce que suñu borom nee na fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay doonte na abwaaba kulli shay it day wane it ubbil naa leen buntu ya leen di yóbbu ci lu nekk te bokk na ci yooyu mooy buntug mbon buntug tasaaroo buntug noono buntug kenn xamul ca loolu it mooy la xew Occident mooy alal jàng na fa gàññ waaye jàmm amu fa famille amu fa amul ful solitaire ku nekk boo xëyee ci sa bopp nga nekkal loolu lan moo koy indi muy fitna boobu loolu moo tax ba ngalawaay yow julit góor góor loolu heure bu la yàlla tegee nattu natt ba doon lu lay delloo ci yàlla balaa contraire ba di ñëw xam nga luy contraire bi ngay nekk ci mooy yàlla ba xëy di yàlla di yokk say xéewal loolu mooy fitne bi gën a bon ba yàlla di teg ab jaamam yaa ngi nekk ci mbon ba pare yàlla di yokk say xéewal ca aka bari tey ci ay nit ñoo xam ne la ñu nekke wallahi aadiwul nekk borom xam-xam lu dul xam ne lii day musiba la du diine ba pare dafa safaanoo ak jukko ju rafet dajale ay ndaw lan la ñuy def fecc dajaloo jaxasoo maye ay sëy doo gis ak julli diglewuñu koor diglewuñu jàng alquran diglewuñu lu dul ay bandak yu kenn xamul et pourtant budget bu ñu am ren budget bi ñëw déwén doublé ko luñ def ren la ci déwén doublé ko mbokk loolu mooy istijraj moom la borom bi ne wax ne sa nastajrijuhum danaa leen yollo ngar mi ngi noonu ba jàppaleen foo xam ne bu ñu xisee ba dugg fa xam ne c'est fini mënatuñu rëccati fa ida hum mublisun loolee kon lañu borom bi wax ci loolu mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون barakallahu fiik mbokk suñu borom mu ne fa xuti a daabirul qawmu noonu la ñu doge gannaawoog xeet ba nga xam ne daabirul qawmi alladina zalamu gannaawoog xeet ba nga xamee ne nii dañoo doon ñu tooñ ca mooy ñoom ñépp kon kenn muccul walhamdulillahi rabbil alamin mboole mi cant ñeel na yàlla mi borom mboole mu mbindaafam qul araaytum nee leen moo ndax yéen gisu leen in axada allahu sam'akum wa absaarakum su yàlla jëlee seen dégg gi ak seen gis yi wa xatama ala qulubikum daa di kaste seen xol yi man ilahun gayrullahi yatiikum bi ana ban yàlla gannaaw yàlla moo leen di dikkaatil ci loolu unzur kayfa nusarrifu al ayat xoolal ni ñuy tasaare di teqalee aaya yi summa hum yasdifoon waaye gannaaw ba ñoom ña ngay doon ñuy dëpp di wane gannaaw bañ koo topp qul araaytum qul araaytakum moo ndax yow gisuloo in ataakum azabullah su leen dikkalee mbugulum yàlla baxtatan aw jahratan mu dikkal leen ci mbetteel wala dikkal leen ci loo xam ne lu feeñ la hal yuhlaku illa al qawmu zalimun ndax dana doon ñuy alku lu dul xeet boo xam ne xeetu tonkat la wa ma nursilul mursalin ñun dey duñu yónni yonent yi illa mubashirina wa munzirin lu dul ngir ñuy bégalaate ak di xuppaate fa man amana wa aslaha koo xam ne gëm na ci yéwénal fala xawfun alayhim kooku day tiitaas nge du nekk ci ñoom wala hum yaxzanuun benn tiisit du nekk du leen dal walladina kadabu bi ayatina ñi weddi suñuy aaya nag yamassuhum alazab dana leen laal mbugal bi ma kaanu yafsuquun ca lañ ñekkoon di ko génn topp mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na bi mu yónnee ci xeeti yonent ñu weddi mu indi ay nattu teg leen ñu fettéerlu dafa ubbi la nga xam ne mooy ay xéewal ba ñu fàtte seen borom complètement mu jàpp leen ci mbetteel ci noonu la leen alage mboole seen mi ngi noonu que mujjoon ci ñoom alku na ay kenn muccul su ko defee suñu borom ñan la musal wana jayna alladina amanu wa kaanu yattaquun mi ngi noonu borom boobu nag mu ni sant ñeen na yàlla mi borom bindaa ko ni ca mbokk def ko tub bàkkaar heure bu deeyee alhamdulillah la ñuy wax yonente bi alayhi salaam nee na nit ki bu deeyee fekk lu bon la nekk woon ci kaw suuf nit ñi dañuy noppalu ci moom gàncax yi noppalu ci moom bàyyuma yi noppalu ci moom lu waral loolu zahara al fasad fi l barri wal bahri bima kasabat aydi nas mboolem catastrophe mboolem désordre bu am ci kaw suuf mbokk yàlla prévoirul woon loolu pour ñun yàlla dañoo prévoir loon pour ah suuf nekk ci ñun mahdan nekk jàmm nekk mi ngi noonu heure bu amee nag ñu fi nekk di perturber ak seeni mooy yàlla yàlla it jaxase loolu loolu moo tax saay-saay bi bu deeyee da ngay gis ne ñépp ci am xéewal mi ngi noonu kon alhamdulillahi rabbil alamin ci mu rey a nit ñu bon ñi borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne waaw yéen bu doon da ngeen a xëy yàlla jël seenu dégg wala ngeen xëy yàlla jël seen gis wala ngeen xëy yàlla jël seen xol ay ngeen dof loolu ak kan beneen yàlla moo ko mën a indi laa kenn mënu ko indi ba ko tey jii yàlla subhanahu wa taala am na ñu muy nattoo dañuy xëy xëy yàlla def ñu gumba tudde ko glaucome tudde ko lu mu mën a doon dañuy am stade boo xam ne dañ naan ki c'est fini kenn mënatu ci dara boo demee Occident ci milliardaires yi da nga fa fekk ay gumba mi ngi noonu ca loolu mën nañu heure bu nekk loolee da ngay gis it dégg gi it noonu la mel yàlla subhanahu wa taala moo ko moom moo ko jël heure bu ko neexee xel mi it da ngay gis ay maladie d'Alzheimer ak yu kenn xamul da ngay gis tey jii ko mel ne Ronald Reagan nga xam ne moo jiite woon États-Unis demoon na ba def complètement ca mu jiite première puissance du monde yàlla jël am xelam. loolu da ngay gis ne sunu borom mu ne lii lu ma ci jël ana kan moo ko mën a indi kenn mënu koo indi kon ñu xam ne mbokk xéewalu xëy ubbi say bët xool déglu dégg sa xol bii ngay xalaat loolu ci yàlla la jóge te yàlla moo la koy sàmmal kon nga war caa sant yàlla bu ko yàlla jëlee kenn mënu la ko delloo mu ngi noonu loolu moo tax ba sunu borom it nee na inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masuula yowmal qiyaama dégg gi la yàlla wërsëgaloon gis gi xol bi la yàlla wërsëgaloon ngay xalaat lépp yàlla dana la ko laaj nan nga sante woon xéewal googee borom bi nag ne xoolal ni may leere la samay aaya ba pare ñu dëppoon ko gannaaw nanguwuñ koo topp nanguwuñ koo gëm suñu borom laajat beneen laaj mu ne waaw ba tey su doonte ni daf leen dikkal mbugalu yàlla ci betteel wala sax bettu leen yéen ngi ko gis muy ñëw ndax dana alku lu dul tooñkat yi ca mbokk mbugalu yàlla ndax yéen ngi fàttaliku li fi xewoon ci tsunami bi ci côté Indonésie yooyu yaakaar naa xanaa ëpp na fukki at léegi de mi ngi noonu ah mi ngi noonu suñu borom yàlla xëy benn loo xam ne ay minute yu néew minute yu néew mu indi yëkkati géej gi dóor ko ci dëkk bi trois cent mille morts non trois cent mille morts ci ay minute yu néew loolu kenn mënu koon prévoir touristes yaa ngi jóge Europe ak seen yaramu neen nekk ci plage yi di feccee ko yu kenn xamul ci ay minute yu néew suñu borom yàlla def loolu léeg-léeg tey jii mbugal bi danay ñëw États-Unis léeg la ñu toog gis benn cyclone buy jógee ci océan bi di ñëw pendant une semaine ñuy prévoir population bi daw leen làqu leen barricade wu leen kasa luñ ci man mënuñu ci dara suñu borom moo koy indi puissance ba ko neex bu ko defee ah téye ko la ko neex New York at yi passé am na benn ngelaw bu fa yàlla ma sa indi nga xam ne guddeeg bëccëg day mel ne guddi booy bëccëg sax da ngay taal ay say lam dëkk bi lëndëm jaxasoo seen missile yaag seen milliards yaag seen armée première armée dara lañ ci mënul yàlla moo toog ba mu neex ko mu dindi teg gi fële gis ngeen kon bokk yàlla subhanahu wa taala moo peeg ay jaamam comme ni mu peege nguuram mu ne nag xam leen ne kii alko mooy mooy tooñkat zalimun ñaar lañu ñi tooñ seen boroom ak ñi tooñ seen moroom ñi tooñ seen boroom mooy yéeféer yi ñoom xalaas safara lañ jëm jeex na waaye bëri na it ay jullit ñu tooñ seen moroom mu man leen a yàqal lu bëri yeneen ci bàyyi sam daan ñu ko moytuloo ndax xam ngeen ki perte ah yéen mi yàlla yónni ki ci perte day xanaa commerçant bu demoon bu amatul dara mu ne déedéet ki perte ci sama xeet mooy koo xam ni ay julleem mat na ay kooram mat na aj makka na def na lu nekk waaye nag tuur na deretu kii jël bakkanu kii lekk alalu kii yàq deru kii ila axir yowmal qiyaama ñooñu ñu dajale leen jël tuyaaba ji di leen fay ba tuyaaba ji jeex ñu jël bàkkaar yi ñu des sëf ko mu ànd ak moom tabbi sawara yar na yàlla musul ñu ci loolu tax tooñ nit ki war koo moytu borom bi mu ni du alku lu dul tooñkat ya borom bi wëlbatiku waat ci ay yonentam mu ne xam leen ne yonenti yàlla yi li tax ñu yónni leen yónni wuñu leen pour ñuy indi ay kawteef yonent amul kattan nan asamaan tawal wala suuf xaral wala nangam la nangam yonent lan mooy rôlam mooy xupp nit ñi bégal nit ñi yoonu àjjana ngi nii kaay leen jaar ci ku ci jaar àjjana nga jëm yoonu sawaraa ngi nii moytu leen ko ku ci jaar sawara la jëm loole moom la ñuy wax yéeféer yi ne leen yonent loolu mooy rôlam am naa jullit yi gëm yonent yi lu ñu leen di wax ba tey et yéen tamit yonent yorul garaatu yàlla yonent li ñu siq ak moom mooy jël ci moom lan la yàlla wax waaye du ñu yaakaar mukk di dellu ci moom du ñu sukkandiku ci moom du ñu torox lu ñeel ko duñ ko defal benn façon jaamu yàlla dañuy gëm ne suñu moroomu jaam la bu ñu war a àndal jaamu yàlla loolu mooy illa mubashiran bégalaate wa munzirin léegi nag koo xam ne gëm na la yonent bi indi jëfee la yonent bi indi muy amana wa aslaha aslaha jëf ju baax munta nekk lu dul muy jëf du yonent jàngale ca ba nga koy def nga def ko ci yàlla tax aslaha suñu borom mu lañu mel nii day bés bu ñuy dajeeg seen borom amuñu lu ñuy tiit malaaka yi daal leen dalal na leen xam leen ne amuleen li ngeen di tiit alaxira wala hum yaxzanuun li ñuy bàyyi àdduna it duñ ko bàyyi xel duñ ko bàyyi xel amul lenn lu ñuy rëccu ci àdduna ma ne rek kaw kaw bi amoon ay néegu ñaxam ca àllu Kédougou ba yàlla ma ne ko gan ñu am palais bu rëy bu mu tabax Dakar ak i kaat kaatam ak kooku bu tuxusee Dakar dana nekk di rëccu ay néegu ñaxam déedéet su ko te loolu misaal la bu tuuti la mbokk jullit bi xis ba nekk ci yoonu àjjana lii di alxusnu génn na ci xolam amul lu muy xalaat ci lim bàyyi àdduna mi ngi noonu loolu ci xéewal yi gën a rëy la bokk yal na yàlla jagleel ñu ko mi ngi noonu Cheikh Ousmane
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وآمن به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين jazakallahu xayra waaw xam naa wala dina kasabu bi dañ koo tafsirul mais jëloon nañ ko ala ala kulli xaal suñu borom mu ne wala dina kasabu bi ayatina ña nga xam ne dañoo wedd suñuy aaya yamassuhumul azab dana leen laal mbugal bima kaanu yafsiquun ci li ñu nekkoon dëkke génne topp ga leen yàlla toppaloo woon suñu borom mu ne qul la aqulu lakum indi xazainullah nee leen man day nekkul ci man lii di magasin yàlla yi wala a'lamul ghaib man day xawma kumpa wala aqulu lakum inni malak duma leen wax ne man malaaka la in attabi'u illa ma yuha ilay nekkuma di topp lu dul li ñuy wax yu jëme ci man qul hal yastawi al a'ma wal basir neel ndax dana yemoo ki nga xam ne dafa gumba ak ka nga xam ne aji gis la afala tatafakkaroon xanaa du ngeen nekk di xalaat wa anzir bihi lazina yaxaafuun xuppeel ci alquran ji waar ci ña nga xam ne ragal nañ an yuxcharu ila rabbihim ñu dekkal leen jëme leen ci seen boroom laysa lahum min dunihi waliyun wala shafia te du leen ñeel gannaaw yàlla moomu kenn koo xam ne dañ da leen di féetewoo wala kenn koo xam ne da leen di ràmmu laallahum yattaquun ngir ñu doon ñuy ragal yàlla wala tatrudi alladina yad'uun yad'uuna rabbahum bul nekk mukk di topp bul nekk mukk di dàq ña nga xam ne dañuy woo seen boroom bil gadaati ca suba ga wal ashi ak ca ngoon ga yuriduuna wajha wajha ñooñu nga xam ne dañuy nekk di sakku kanamu borom ba ma alayka min xisaabihim min cheyin warul la ci seen réglé ba ñeen di réglé yowmal qiyaama ci dara wa ma min xisaabika alayhim min cheyin waru leen ñooy mit te réglé bañ leen nar a réglé àllaaxira ci dara fa tatrudahum nga dàq leen day fa takuuna min alzalimin kon da nga bokk ci tooñkat yi mi ngi noonu mbokk kon suñu borom dani ku weddi aayaam yi mbugal dana la dal ngiri génn topp ga nga xam ne génnoon nga ko ak topp ca loolu it ñépp a ci bokk yem na doon doomu yonent nga ak bàyyi yonent mbokk aaya yi borom bi yàlla da ko indi mu nekk yoon bu jëmee ci ngërëmam ku ca toppul yaa nga dem tabbi sawara mu safaanoon nag lu bari ci doomu aadama yi maadaama kii moom diw la sant ku mel nii kay dañuy barkeeloo ci moom yaakaar ña muy yóbbaale waaye moom moom ay mbiram moom féete na boor loolee mbokk njuumte la loolee njuumte la doonte ne lu tasaaroo la ci doomu aadama yi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo waroon a nekk ku gën a màgg ci ku ñuy yaakaar bu doon am na ku ñuy yaakaar ci du yàlla suñu boroom teel na ko avertir ne ko waxal waxal waxal ko sa bopp mi nga noonu waxal ko sa bopp nee leen man day moomuma ah nekk waxuma leen ni dama am magasin yàlla yi déedéet mbokk yonent yàlla bi amul kenn ku mën a may misqaala zarra mu safaanoo ak yu bari yiñ daan wax ci suñu réew dañ naan diw dafa am ay prise ak dafa am ay kanoog dafa am ay nangam mbokk wërsëg ci loxo yàlla la nekk yàlla kese moo koy joxe amul kenn kuy wërsëgal ku dul yàlla ca pour preuve yonent yàlla boobu sallallahu alayhi wa sallam yàlla nattoo woon na ko ay ñàkk yu tar lu tax loolu ca pourtant day yàlla nee na ko nee leen walaw kuntu a'lamul ghayba lastaksartu min al xayri wa ma massani su waaye téewul yonent bi alayhi salaam daa dem toog këram ñaari weer cin du tàkk ci kër gi cin du tàkk ci kër gi su ne Aïcha nee na ndox la ñuy lekk ak tàndarma deux mois plein ndox tàndarma lu dul amoon nañ ay dëkkandoo yu ñu doon may meew bu ñuy naan rasul sallallahu alayhi wasallam bi muy faatu mbubb bi mu daan sol buy dem guerre mi ngi ko tayle benn yahut koo xam ne nii moo ko lebal pepp mu muy dundale waa këram mi ngi noonu loolu boo demoo yéen xale yi Victor Hugo donte na bi yéeféer la woon tagg yam ko doon tagg mu ne moom lañu xam ci àdduna nga jiite empire nekk buur boo xam ne buur bu mag la ba pare di lépp loo xam ne sa waa kër dañ koy dunde sallallahu alayhi wa sallam amuloon ay trésor amuloon ay nangam bu safaanoo bi daan sëñ diw ñaata milliards la bay ah mbokk mi ngi noonu ku ko asu sallallahu alayhi wa sallam mooy nee na nee leen man yoruma magasin a borom bi subhanahu wa taala gannaaw ba it man xawma kumpa xamul kumpa sallallahu alayhi wa sallam ay mbir danaan xew ci biir famille xamul naka la mu ngi noonu sunu mag bi mu ñuy fàttali rek bi ci tafsir passé mu ñuy fàttali it histoire yooyu Aïcha xoolal yaay Aïcha ay saay-saay yu bon jiñ ko njaaroo affaire bi jaxase yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy woo Usaama woo Barira woo Ali ibnu Talib di leen laaj ñu ngeen xam ci Aïcha kaza wa kaza xamul ni mbir mi ndax am na ak amul ba baa nag yàllay wàcc ci alquran doo ko wax li am na loolu kon mbokk mi ngi noonu kon moom xamuloon alxaybul mutlaq lan la def mooy dama daay damay topp li yàlla waxu ci moom lim daan wax ci kumpa yëpp yàlla yónni jibril na ko neel muhammad nangam nangam mais moom en tant que moom xamuloon kumpa waaw léegi nag nan ngay jàpp ni rasul sallallahu alayhi wasallam xamul kumpa ba pare nga dem ne masamba moom xam na kumpa loolee mbokk da ngay gis ne looloo tax ci bàkkaar yi gën a grave ci la bokk mooy dem ci ay seetkat wala gëm ay seetkat ñetteel bi it nee leen ne man duma malaaka duma malaaka nit laa comme yéen parce que bokk na lu yéefir doon wax ma li hada rasul yaakulu taam yamshi fil aswaq moom nee na kat nitu yàlla na ko yàlla yónni et pourtant day lekk ñam comme nit comme ñëpp et pourtant mi ngi dox ci marché yi régler problème am nee leen man duma malaaka sama rôle mooy topp li yàlla waxyu ci man gaa yi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam amul lenn loo xam ne ci diine ji loo xam ne moo ko sos lépp da koo jottali looloo tax nga la waay jàppal règle bi xamal ni diine day xaraam ñu jëfe ci lenn lu dul lu ñu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nga xam ne nii mooy wàllu àdduna dañ naan lépp dagan na lu dul lu yonent bi ne xaram na mbiri àdduna lépp luñ ciy jëfandikoo di ko lekk dagan na lu dul lu jóge ci yonent bi ne xaraam na amma diine lépp xaraam na lu dul lu jóge ci yonent bi ne war na si na koo def loolu moom la jullit war a xam moo tax mu ne in attabi'u du ma topp illa ma yuha ilayya li ñu wax ci man kese lay topp borom bi nag ne waaw ndax dana yem gumba ak kiy gis la shakk mënta yem silmaxa bu taxawoon fii nga naan ko lii ma takk lu ma doon lu ma am lu mu ci mën a gis déedéet ah silmaxa bu taxaw fii nga koy wax waaw lii ban couleur la la kon silmaxa ak kiy gis mënta yem doonte ne silmaxa bi yàlla jublu fii mooy lam ne innaha la taamal absar walakin taamal qulub allati fi sudur mooy ñi nga xam ne seeni dënn moo silmaxa ñooñu duñ yem ak ñi nga xam ne seen xol moo silmaxa du yem ak ña nga xam ne seen xol day gis ndax du ngeen fàttali ko borom bi nag ne yow yeneen ci yàlla bi waaral ci alxuraan ji ñi nga xam ne ñoom day ragal nañ ne daañ leen dajale ci seen borom ca buñ demee yaakaaruñ fa suñ diw yaakaaruñu cheikh diw yaakaaruñu cheikh fulaan xam nañ ne kenn dong nga leen mën a féetewoo kenn dong nga leen mën a ram muy yàlla ñii de boo leen waaree ñoom daan jéeri ñu ragal yàlla waaye mbokk lu tax tey waaraate amul njëriñ mooy am na ñoo xam ne nii lañ yaakaar du yàlla nettali naa leen ay yoonu yoon ndax loolu dama ko déggul ci rajo dégg ma ko ci télé dama taxaw toog ci Sandaga benn góor ñëw ci ñi mu nekkal daal ngeen ah xoolal diw man may dem dama boole kenn naan ma waaw diw moom da dul da da bu ñuy julli du julli ma ne ko cim yaa ñàkk a xam gis nga li may gis may fakastuli di ànd yéeg julli leen dara laa ci gëmul man àllaaxira suñ diw laa yaakaar yaa ngi suñ diw laa yaakaar da ngeen ne doy war rek waaye Sénégal moom yii firi sa àddina lañ jëm yaa ngi dégg loolu mbokk mooy ku mel nii lan lan lay ragal ci kaw suuf suñu mbokk Bamba ñaan mag yi jàkka ji xam nañ ko nee na am na benn waay bi mu waxal mu ne ko hey gis nga ñun ñun waa mbooloo sangam ku ñu toon ci àdduna lu la neex defal di àllaaxira moom bu ñu fa demee perte ga yaa ngi bu ñu gisee suñ diw rek rek la ne yëpp mbokk ku mel noonu nag da ngay gis du am limite du am lu muy ragal parce que am na garantie totale garantie totale danaa leen ci dolli keneen alhaaji Fajur Gueye sunu mbokk la bu ñu daan àndal ci jàkka ji yal na yàlla jéggal ko yërëm ko nee na dem na fekk benn ci kilifay Senelec gi inspecteur la woon nee na bi mu ñëwee di inspecté lan la gis waa ji mu ngi bàyyi famille Dakar waaye jànq ba mu fanaanoo tey bokk la ka muy fanaanoo ëllëg mu ne ko yow sëñ bi ragalal yàlla nan ngay bàyyi sa njaboot fële ñëw di def li ngay def mu ne ko hey El Hadj Faduro yéen da ngeen am problème xamuleen li ngeen di fekk àllaaxira man nag am naa garantie ne sëñ diw dana ma dugal àjjana bàyyi ma ci li ma nekke gars yi xoolal lii ah léegi nag moo tax suñu borom ne yow booy waar xoolal ñi nga xam ne ñoom xam nañ ne buñ dajee àllaaxira yàlla dong lañ fa yaakaar mais ki yaakaar leen dul yàlla jarul waar loolu mi ngi noonu loolu bu ko defee suñu borom mu ne laallahum yattaquun ngir ñu doon ñoo xam ne ñu ragal yàlla léegi nag suñu borom mi arhamar rahimin yonent bi alayhi salatu wasalaam ay kilifay arab dañoo ñëw ci moom da ko waaw yow Muhammad li ngay wax moom baax na waaye nag dëgg dëgg dëgg ñun en tant que ay kilifa ñu ñëw nag di toog ak sa Samba Sorabari si ah baadoolo yi ñuy toog ak ñoom loolu ñun mënuñu ko soo bëggee daal ñu gëm la da nga ñuy wutal ñaari saal da nga wut ñaari saal saal boo ñuy recevoir ak saal boo ñuy recevoir fële ma gars yi nga xam ngeen bu ngeen demee kër sëñ Thiam ñaari saal la fa nekk de saari borom kat-kat yi ah bokkul ak saari borom seret yi de ah ñu ngi noonu fa ñuy dajal gars yi naka noonu buñ demee it ca mbooloo ma tribune officielle ba ca kaw ñu yor carte dorée ko gaariwul kat-kat fee du doo ci yéeg de mi ngi noonu am na gars yi indi ndeysaan cere yaag matt yaag yooyu kenn du la sax tudd su ko defee nag bu mbooloo mi ñëw ñu noonu waaw diw teew ne fi diw teew ne fi diw teew mooy borom awla bi diis yi jeex na loolu mbokk moom la ñu doon laaj jëleen ci yàlla nu mi ngi noonu anu'minu laka wattaba'aka al-arsulu nuux lu ñu lay gëme yow baa doon yi samba sura bari ñu la topp nga bëgg ñun ñu gëm ne di ànd ak ñoom duñ ko def borom bi nag subhanahu wa taala ne yonent yàlla bi ñi nga xam ne day dañoo doon ñu gëm doon ñu néew doole nga xam ni ñi ngi woo seen borom suba gu nekk alxada mooy njëlbeenu suba mi ngi noonu mooy fa fajar xare jëm kaw alashi mooy mujjeel ga fa ñuy jëmee côté takkusaan ba ba jant ba di so loolu la borom bi di wax naan na nga tudd sabbih bisma rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha yooyu di ngëneel yu bari ci ay zikrullah mu ne ñooñu nga xam ne nag ñoo ngi nekk ak yow te aaya yii da ngay gis ne jamono bi wàcc suratul an'am bokkoon na li gënoon a nekk farata ñaari julli yooyee ñooñu day nga xam ne ñi ngi tudd seen borom guddeeg bëccëg te ñoom bëgguñu lu dul kanamug yàlla ga yàlla subhanahu wa taala gërëm leen ngal la way bu leen dàq ngir ñii abadan bu leen dàq mukk ngir ñii su ko defee loolu nit ñi bàyyi ci xel bu baax borom bi subhanahu wa taala ni yow yonente bi mbooloo mii ma la yónni seen xisaab sa yónniwu ci kii gëm naa kii gëmul c'est pas ton problème xam nga yow lu sa problème mooy jottali li ma lay jottali bóoroy gëmam baadoo lay gëmam loolu du sa mbir gis ngeen maa alayka min xisaabihim min shay'in wa maa ala rasul illa al balaax mi ngi noonu dara wóotalu dul jottali yéen ñëpp yéen ngi fàttali la ko yàlla jajje ci abasa wa tawalla mi ngi toog ak kilifa yi Quraysh yi ñooñu ñëw nag waaw léegi daal dañu bëgg nga leeral ñu diine ji mu jàpp occasion gi nii Abdullah ibn Umm Maktum moom moo koy jóge fële xamul la xew yaa Muhammad lan moo mujj wàcc ci alquran yonent bi mer ndax lim koy perturbé suñu borom na ko waaw yow lu si yoon ci loolu wa ma alayka la yazakka aw yazakkaru fatanfa'u zikra yow da ngaa la dañ laa sëtt nga waare kii moom nee na nga waar ko teel koo waar ñii nga xam ne nag ñoom seen yónneewu ci kukkali leen indi ah nga nekk di yëblu ci ñoom ala kulli xaal yemeleel ñëpp yemeleel ñëpp ëllëgi ki si biir ñoom am nañ seen responsabilité ma alayhim min xisaabihim min shay yow am nga responsabilité ca mooy nga waar la leen war mooy ñoom ñu topp léegi bis boo leen dàqee da nga bokk ci ñuy tooñ looloo tax ba mbokk yonent bi alei salatu salaam noonu la ko jëfee commencé fal abdullah boobu silmaxa la woon heure bu ko yonent bi mosaan gis day jóg taxaw dem gàttandu ko toogal ko ci wetam ne kii la ma sama borom yeddee naka noonu ñan ñoo gënoon a sus ci yonente bi alayhi salaam yéen a ngi dégg kuy Bilaal la Bilaal mbokk jaam la woon buñ goreel mu jóge Abash te Bilaal moo nekkoon secrétaire u yonente bi trésorier yonente bi gënoon a sus ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yéen a ngi dégg Abdullah ibn Mas'ud mi ngi noonu yéen a ngi dégg ay Shuayb Rumi yéen a ngi dégg ñoo xam ne ci jamono bi yonente bi woote tekkiwuñu woon dara mi islam ñëw yëkkati leen def leen ay buur loolu it mbokk mi wane ne Allah subhanahu wa taala arhamur rahimin mooy ke maandu diine ji ñëpp xacc waaye muy wan it jullit bul xeeb sa bopp bul xeeb kenn waaye bul xeeb sa bopp bul nangu kenn xeeb la maadaama jullit nga bu gëm yàlla xamal ne ku tedd nga ko yàlla teral nga bul nangoo nekk di toroxal sa bopp mi ngi noonu doomu aadama yi bëri nag ñoom dañuy ñaan dund ci toroxtaange seen doom ci toroxtaange seen sët ci toroxtaange yàlla na ñu nekk ay taalib yi ñu nekk ay taalib yi doo ñaan nekk sëriñ ñëw tamit ah mi ngi noonu su ko defee kon doomu aadama yi dañoo war di xam ne ñoo yem ci yàlla ñoo yem ci yàlla ñun ñëpp ñu ànd bëggante jàppante nekk benn jëmm yaakaar yàlla mi nga xam ne moom dong moo yor njëriñ moom dong moo yor moo yor lor ñu ngi ñaan borom boobu subhanahu wa taala wërsëgaloon nañu koor gi ñu ngi fi doon daje ba tey suñu mujjeelu daje yal na yàlla nangul ñi li ñu fi jot a wax lépp loo xam ne ay njuumte yu ci amoon la moo ko gën a xam yal na yàlla jéggal ñu ko yal na yàlla bindal ñu tuyaaba ci daje bi lam ci jege ca may wàcce ci yërmande ak dal ak yiirug malaaka ak di tudd ca jàmm yi kawe ya yal na yàlla defal ñu ko booloo yi nga xam ne it ñoo koy déglu fu ñu mën a nekk ci adduna yal na yàlla boolu ñu ak ñoom ci yool boobee fayal ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ca seen diggante yal na yàlla defal ñu alquranul karim mu naat defal suñuy dënn yal na yàlla defal ko muy leeral suñu mbiri àdduna ak alaxira yal nañ ci yàlla yëkkatee ba yóbbu ñu ci firdawsil aala yal na yàlla wërsëgal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira sunu bépp néew boo xam ne jiitu na ci biir suuf yal na yàlla jéggal leen yërëm leen yàlla yaatal seen i bàmmeel teggi seen i mbugal yal na yàlla teeteel ñu sunu njaboot ila siraatal mustaqim def leen njaboot guy sedd xol àdduna sedd xol alaxira réew mi ñu nekk yal na yàlla def ko réewum lislaam yal na fi yàlla génne wootekat yi woote ci alxuraan ak sunna képp koy woo nit ñi ci réer yal na yàlla mamb sa woote toroxal la yal na yàlla subhanahu wa taala indil ñu ateb lislaam yal na borom bi subhanahu wa taala yokk suñu ngëm yal na yàlla yokk suñu xam-xam mbooli mi xiiwulu adduna ak alaxira yal na yàlla defal ñu ko yàlla mi ñu dajale ci jàkkaam ji yal nañu dajale ci firdawsil aala ñu ànd ak yeneen ci yaag shuhadaa yi wa salihin allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم xam naa ñu ñaan yàlla nañ fi yàlla dajale déwén ak jàmm barakallahu fikum